jaajëfal nañ leen bu baax a baax suñu mbokk internet yu 5M TV Sénégal ñuy àddu rek ci kàddu yi nga xam ni kile di journaliste bi di Pape Alé Niang daal dina koy fësal di wax ni sax ab saagala la rek jëm ci sénégalais yile ginnaaw nag kàddu yi nga xam ni kile di nag di maître Olivier Sur daal dina koy yëkkati muy wax ni rek ab loo xam ni rek dañu bëgg salfaañi réew mi loole loolee nag duñ ko nangu benn yoon na jàpp ne ñun nag duñu ay bàyyi ma sax nag respect ci ñun ginnaaw nag kàddu yi nga xam ne daal dina ko yëkkati ndax moomee sax topp nañ ko rek ci procès bi nga xam ne amoon na ko ci nag kile di Karim Wade ginnaaw googee sax la ñu xam ne nag moom lu mu doon na xam ni rek moom itam après que simple collègue la maanaam rek dafa ñëw rek ngir amal liggéeyam kon nag bum ñu rek wax ni ñun fii lañuy jaar wala lii la ñu war a def mu mel ni kàddu yooyu nag kile di journaliste bi Pape ñoom moom la daal di rek fësal la